Cheikh Ayma Diakhaté Ousmane jiite mbooleem imaam yu jàkk ak jumaa yi nekk ci réewum Côte d'Ivoire waaye itam jiite mbooleem lu jëm ci wàllum diine foofee ca réew ma amal na tukki nemmeeku bu am solo ci Sénégal rawatina ci dëkk bu tedd bi di Touba tukki boobu nag mu def ko diirub ñaari fan gannaaw ba ko xalif général des Mourides Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké dalale ci dëkk bu tedd bi amal na ay tukkey nemmeeku ci ay bërëb yu fasantikoo bokk na ci fi ci daaray Kamil. bi mu fi ñëwee ànd ak délégation bu am solo Serigne Moustapha Diatara mi nga xam ne nii moo fi féete dalal na ko tatakal ko gannaaw bi nu wëree lenn ci bërëb yi nga xam ne ñoo nekk fii ci këru xam-xam gi di daaray Kamil moom kat yëkkati na ay kàddu fësal mbégteem lool waaye li ko jiitu sëriñ Moustapha Diatara dalal na ko xamal ko bërëb bi lan moo ko fi tax a jóg ak lan mooy njariñam ñu ànd ak yéen ci jataay yu am solo yooyu. يعني اشترينا كل الكتب تقريبا كتب الإسلامية كلها وكان يريد أن يقيم المكتبة ثم يقيم الجامعة ولكن اكتمل المكتب ولم تكتمل الجامعة طور البناء طور البناء هو الآن في طور البناء على يد الخليفة الجديد الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره إذا هذه المكتبة من مشروعات الشيخ الخليم رضي الله عنه ويوجد فيه كل الوثائق يوجد فيه كل ما يريده باحث من الباحثين يأتي فيه الفرنسيون الإيطاليون كل من جميع أنحاء العالم يأتون هنا للبحث حتى ال... كلهم يأتون هنا للبحث إذن فهذه مكتبة الشيخ الخديم باختصار. Vous saluons. au nom de toute la Mouridia, au nom du Khalif général des Mourides, en vous remerciant de votre visite et en faisant un petit sur l'historique de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, qui, toute sa vie durant, a consacré ses heures, son temps, son aide à la dévotion, à l'adoration de Dieu et au service rendu au prophète Ali Nous sommes heureux ce matin d'être dans un des lieux les plus emblématiques de, du mouridisme. Il s'agit de la bibliothèque du Cheikh euh, Amadou Bamba. Une bibliothèque complète que nous avons vue des sciences euh, islamiques, de la vision et de la philosophie du Cheikh Amadou Bamba dans le sciences islamiques et dans le soufisme sunnite. Et les références essentielles de la science islamique, du fait, et bien d'autres sciences qu'on pourrait qualifier de profanes, la géographie, l'économie islamique, l'économie, la technologie, pour dire à la fin que ce voyage nous a permis de découvrir que le mouridisme est une des tariqas qui donne le plus d'importance, le plus d'importance à des choses essentielles dans l'islam. J'allais dire trois choses. D'abord, à l'ilm, la connaissance. Ensuite, la taqwa, la purification de l'âme et la piété. Et ensuite, troisième élément essentiel, le travail. Nous avons été édifiés et nous portons témoignage qu'effectivement, on entend dire beaucoup de choses du mouridisme, mais nous sommes venus, nous avons vu nous avons touché. Et nous portons donc témoignage que, Inch'Allah, les relations, nous ferons de notre mieux pour développer les relations. Comme je l'ai dit devant le calife, et je l'ai dit aussi par ailleurs, que, Inch'Allah, les, le mouridisme, les mourides feront désormais partie de la configuration de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Les mourides seront des membres à part entière et non plus entièrement à part de la communauté musulmane. Inch'Allah, nous allons y travailler parce que nous sommes convaincus que, comme a dit un chercheur, que le mouridisme est un secret caché. Mais nous allons travailler pour que ce secret caché soit maintenant divulgué, pour que chacun de nous puisse tirer le meilleur profit de, nag mooy tukkeeb nemmeeku bu njëkk bi nga xam ne ni Cheikh Ayma Diakité Ousmane jóge foofale ca Côte d'Ivoire ñëw fii ci Sénégal rawatina ci dëkk bu tedd bi di Touba buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci moom am na mbégte bu baax a baax ci dalal ak teral gi nga ko teral fii ci dëkk bu tedd bi di Touba ci biiri kàddoom sax mu ngi leeral ne. lim yàgg dégg yàggu ko gëstu firnde bi gis na ko loolu du leen lu dut yoonu murit taxawaay bi nga xam ne nii am nañ ko ci diine yi lislaam lool tax na nag ci tel gi nee na kat tukkee nemmeeku yi du ko yemale rek ci tey ji waaye dinañ ko fas yéene wéyal ba itam jàppalante gi ak demlante gi kóllëre gi rawatina ci diine ji ba diggante Touba ak ñoo ñu nga xam ne ni ñoo ŋànk wàllum diine foofee ca Côte d'Ivoire gën a dëgër